boo xoolee eh, tolluwaay feebar bi boko naté ci bir réew mi gis nañ ni manam bo jëlee tay chiffre tay mu jëlee chiffre tay gis nañ ni vraiment chiffre yo xamni dal na xel parce que ci li topp lu ñaari junni test boko défé defee lu mat témèr eh, positif dañ wax ni alhamdulilah donc tendance bo bu continuer rek mën nañ ci am eh, mën nañ ci rafet njot mais boo jëlee sur le plan global nga nat natt eh, dëkk yi daa gis ni ba dakar moom moo jiitu ci li am ñu am jàngoro topp ci jurbel topp ci alhamdulillah eh, yeneen dëkk yi alhamdulilah jamono ñu toll nii vraiment seen tendance mu ngi wàññeeku mu ngi xayma def gis nañ ni juróom-ñaar fukk yi ak li ci topp yëpp dakaar la ne e, boo jëlee aussi li ñuy wax transmission communautaire maanaam e, doomu jàngoro buy law ci biir askan gi boo ko xoolee te xamuñu fan lu jóge boo ko xoolee juróom fukk yi li ak li ci topp dakaar la ne bool donc loolu jàngat yooyu boo ko gisee rek da nga xam ni vraiment dakaar tey jii moo lëmbee mbir mi

boko ko ci borom euh, xayma ko ci euh, askan ci population gis nañ né Dakar c'est plus de 25% de la population donc mo ëpp euh, doomu aadama ci réew mi donc forte densité bobu ben li mu mën a jur mooy promiscuité moy dajaloo lolou ben la mën na koo jur ñaare dem ak dikk bi da fay bëre fofu parce que Dakar aussi mom moy pôle économique Sénégal waaw activité fi la ëppee donc dugg génn bi fi la ëppee ñiy jóge banlieue ñëw biir Dakar ñi dem fanaani banlieue ak yooyu xam nga donc transport bi am doole promiscuité bi am doole déplacement bi am doole loolu yëpp mën na expliquer tey ji pandémie bi épidémie bi ci biir Dakar waaw loolu vraiment ay explication yu am solo la yoo xam ne waruñu ko mën a négliger donc il faudrait que tey intervention boo def rek ci population boobu nga ko jëmale c'est inquiétant loolu moo tax keroog je crois que li ngay wax ni loolu la autorités yi gis boo que le ministre de la santé ci boppam mu ñëw def déclaration la situation Dakar c'est pour attirer l'attention des Sénégalais particulièrement ñi nekk Dakar ne situation bi situation. na waar te Dakar plus mën a dimbali Sénégal ministre wax na si bu ñu pertee Dakar Sénégal donc il faut que Dakar soit maîtrisé. pour nous maîtriser il faut que population bi et ak autorité sanitaire et administrative soient ñu ko c'est fondamental